bu ñu ko waxee maalaw bu Ama Balde ah maalaw bu Pikine maalaw maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay nuyu di la ziar rek yi di la jox sa wàcc waaye di la ñaanal jàmm di la wax baal ma wax si weeru koor gi. di la baal wax di la ñaanal tawfeex di la ñaanal mucc weeru koor gi yàlla nekk ay weeru koor yi gëneel si ñun bu ñu jógee tamit lépp lu si waay di momet rek yàlla na ko suñu borom jox ba mu jeex tàkk yàlla nañ si woor ak jàmm génn si ak jàmm. waaw lépp lu si waay di wër rek yàlla na ko suñu borom joxum jeex tàkk barke yonent bi sallallahu alayhi ak ñoom Malaw Seras ak Ama Baldé seen diggante waaw Pikine suñu njaboot waaw moom moom bu xewlee lii rek lañ si am ndax dañuy eh, eh, Pikine sax moom waxuma la ñun kese mais képp kuy Pikine dëkk Pikine rek wala nga yeewoo Pikine rek ah, bu xewlee da nga war a ñëw ndax moom xewlu kenn bisam booy ngénte wala ay cant wala làmb moo ngi si domaine yëpp ah du domaine làmb kese gaa yi nag làmb lañ ko gën a xamee mais moom si yeneen domaine yoo xam sax du làmb kom ay simb sax da koy topp waxuma ak lépp lay topp moom ku si nekk ku xew la biir Pikine rek da koy jaral mu départation mu jaayande quoi ko ñun lii lañ ko deseel kon lu boomee bisam nag dañuy ñëw teewal ko rek loolu la ñuy gëm da suñu rakk la da yàgg nañoo sonn si ñun du tey démb la seen waa kër tamit noonu yaayam nekk bu baax bu ñëwee xàmmewul doom bi laa jur doom bi ñëpp da leen ëmb def leen yaay doom waaw loolu jafe na si yaay quoi waaw na ko yàlla jàppale ba lépp lu muy wër si njabootam yàlla na ko yàlla jox ba mu jeex tàkk barke yonent bi. tey ñu dugg ci li nga xam ne moom moo di Ama Baldé ñu xëy gis ko li nga xam ne moom moo di INSEPS ñi ne moog Balla Gaye 2 fa nekkandoo Ama Baldé INSEPS lan la. ah ah, ah daa war a liggéey rek amul nit moom yaakaar naa boo jëlee avance war a bëre li nga yaakaar ni moo lay may ndam wala li nga yaakaar ni moom lay mun a muccal loolu ngay def xëy na jël na combat dem war a entraîné nañu entraîné nañu rek. nekk faak magam Balla Gaye waaw yooyu léegi nag ñoo bokk nekk centre bi waaw ñoom ñaar ñëpp ñu war a entraîné noonu loolu ay mbër lañu mbër moom garaawul mbër moom boo nekkee mbër moom lu sa première euh, bakkan bi loo si war a teg entraînement avant dara xew boo si tegee entraînement ba pare mais dafa la war entraîné euh, fonk sa bopp xam xam yaay kan quoi doomu da war a xam yaay kan boo xamee yaay kan la doo sonn waaw xam am na foo jógee am na lu lay xaar am na lu lees waaw moom Sénégal yëpp a ngi toog di la xaar kon amul wax wax amul fi njëriñ jëf a gën a wóor moom na xool rek xam lu mu war a indi xam lu mu war a def loolu la ko si am solo. di ko xaar nag ak jàmm di ko xaar ak salaam di ko ñaanal yàlla tamit ah li des si carrière am yàlla na ko yàlla mottali waaw bu yàlla bu mu si gisati lu mu ragal yàlla bu mu si gisati dara lu muy tiit waaw da mbër la ñu xam ñu mbër la xam nañ ñeme na xam nañ lépp a ngi si moom waaw xëy na nag suñu borom lépp lu mu namm rek kenn mu si dara da nga doon wër xëy na yàlla moo la xañ jox keneen wër jiwaatal rek yàlla mën na ko joxaat yàlla na ko yàlla mottali. gis Ama ñu ne moo Reug Reug taxaw na. dañoo gisoon Boy Niang ak Reug taxaw na loolu waa Makan waa Gaston production ñoo ko taxawal ñu xëyaat gis Alburax jox Ama Balde ak Reug Reug tamit li nga xam ne moom moo di avance ñi ne Pikine dóor fayu la ñi ne day indi polémique biir Pikine ñi ne day am lu muy jaxase biir Pikine Ama Balde jël avance Reug Reug Boy Niang jël avance Reug Reug lay def biir Pikine mais man ah man bu fekkee dëgg na yàlla nii nii nga ma ko waxee nii ni laa ko yëgee tamit ah muy dégg rek <laughs> gars yi taxaw bi arki seexul xarit bu dëgg na yàlla nii laa déggoon man Siteu Ama sax laa doon dégg man fekkee dégg na yàlla laa yaakaaroon moo taxaw moom la tamit quoi mu defoon mooy taxaw quoi mais comme bu Reug Reug mi nii man moom yógu moo si dara fekkee dégg na yàlla mais xam naa ne tamit comme ñoom ñoo ko waxaale woon si Siteu bi xëy na xam naa dañ ko bëgg a foofu rek si Reug Reug bi moo tax Ama waxu la ne moom Reug Reug taxaw na ah moom moom waxoon na moo ne moom doon nañ dox yaa bëggoon nañ ko quoi pour bëreeg Siteu ba pare comme bu demee ba bëreeg ba pare après moo waaw ah, bu fekkee Reug Reug bëreeg Boy Niang ba pare ñu jox ko Reug Reug waaw loolu boo ko boole woon nañ ko yaakaar naa si palmarès am waxoon nañ ko ko tamit ah. waaw mais xëy na xam naa ne comme làmb léegi nu mu demee rek jaxa affaire yi jaxasoo rek gars yi commencé <laughs> promoteur yi daal seen biir xaw ma nu mu demee noonu mais yàlla yàlla dafa jaamu rek. <laughs> Ah, ñoom ñoom ngay ñoom loolu la boo gisee action sax nga xam am na lu si biir. maalaw mm. ah, maalaw est-ce que du am indi lu muy indi polémique biir Pikine du am lu jaxase biir Pikine ci loolu. waaw mun xam naa ne moom du si ñàkk moom mais ku si nekk tamit ah na nga am gëm yàlla rek xam ne ñoom ñaar ñëpp dañuy liggéey comme ñoom noonu ñu ko waxee woon rek waaw ku si nekk yaakaar naa ne euh, boo ñaa su bëree euh, réew pare sax teewul mun a Reug Reug mënul tee Reug Reug bañ a bëreeg Ama même bu jëloo avance bi sax bu bëreeg Reug Reug ba pare suba moog moog Reug mun na taxaw même bu bëree woon ak Reug Reug ba pare sax suba Reug Reug Ama mun nañ taxaw. est-ce que woon ba pare mu génn gënu. ah moom a gënoon moom mais xam nga promoteur tamit man man moom moom su fekkee dëgg na yàlla promoteur yi li ma gis ñuy doxalee nii moom ñoom ñoo ko jaxase. waaw est-ce que parce que yow tamit jaxase ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo si bëgg sax. boo biir Pikine bon ñoo ko bëgg de fekkee dëgg na yàlla rek ñoom boo gisee ñu def nii affaire genre dóor fayu la yu bëgg di bëgg a jaxase Pikine ne affaire du foofu ñun moom amuñu xol boobu amuñu yéene boobu man boo ñaa euh, ama ama xëy na sama rakk la sama lépp la waaye man képp kuy bëre biir Pikine dama lay yéene ndam wallaahi amul kenn mais nag ñëpp xam nañ kii si ama mooy léppam mais wallaahi képp man liir cuuju Pikine buy bëre dama koy faral wallaahi da su ma ñaanal yàlla moom laa ñaanal yàlla yàlla may ko ndam moom boo ñaa promoteurs yi ñoom commencé mélangé affaire yi xaw ma lu mu demee noonu mais promoteurs yi ñoo jaxase affaire yi. promoteurs yi léegi dañoo am benn xeex bu ñuy xeex benn lobby lobby quoi loolu affaire bi foofu. maa loolu bokkut ci lu yàq. day yàq làmb ndax bu doon muy yàq làmb arrange na mbëri nag. waaw mais waaw waaw léegi làmb am na fu muy tàggee promoteur doonul mën a dem foofu moo jar a xalaat. ñun mën nañu arranger ñun bëri yi nga xam ne dañuy fay ko ay ñaari avance ak ñetti avance ku si am yéene nga ko quoi mais tey am na foo toll si promoteur bu ñu demee ba gisatuñu benn promoteur wala ñaari promoteur kam mooy tëggati. est-ce génnoon jël avance su Gris Bordeaux du andiwaat na bañ a indi polémique ndax promoteur yi jaxase nañu ba pare léegi lamb toll na foo xam ne léegi yaakaar naa amatul wax yéen a bokk adversaire. mais que Pikine fi mu toll nii war lu war a mën a jaxase la fi Pikine toll. non war yoo woon jaxase ndax ku si nekk yaakaar war nga toll si bi euh, comme Ama fi mu toll nii dañ ko war a mën a jox loxo taalal mu génn euh, boo ñaa fi mu toll nii dañ ko mën a war a jox loxo taalal ko loxo mu génn euh, Eumeu Sène toll nii combat jëm si dañ ko mën a jàppale jox ko loxo taalal ko mu génn Pikine foofu la war a toll xool si defet yi mu jógee ñetti defet lañ teg rek bu ñu ko faatee ñetti ponk yëpp a daanu. muy Ama Boy Niang Eumeu Sène ñoom ñett ñëpp ñoo ñoo daanu ko ñoom ñett ñëpp waa bëgg dañ leen war a am am ni ñu indiwaatee pour ñoo may ndam ndax affaire bi bu bu dul dara dañuy xool couleur Pikine bi drapeau bi mu si solo tamit quoi drapeau bi. Pikine ci dynamique bi mu toll. gars yi ñoo ngi saltel drapeau bi xam nga Pikine ku nekk yàgg naa toog si ruq 100 pour cent mosu fee am 200 pour cent mosu fee am xam nga man mosoo toog may wax sax mosoo si 200 pour cent wala 100 pour non non non non ndax nit day ma man ma am loo xam ne dama ko gëm sama àdduna dama laay doxee man Pikine laa mos a doon Pikine deret la dañu wax Eumeu Sène da doon jël écurie yëpp du fa contact dugg écurie yëpp du fa contact kon mu demee ba contact ko du écurie yëpp nag am fu muy contact fu mu dul contact kon am na lu des 100 pour cent boo gisee rek lu jaxasoo la lu ñuy defaraat. waaw lu jaxasoowul duñ ko defaraat <laughs> ku nekk ku <laughs> ku nekk ku nekk yaa ngaa toog si ruq di yéene sa morom jaamu nañ toog jàpp loolu rek man de fi ñu toogoon écurie Fara lañ amoon ah mosoo dem fenn ñoom coow yëpp ñuy bëri bëri mosoo boo ñaak ah ñooñu kontaan mosoo dégg boo ñaak ëmb seen ñooñu bu ñu naxante ah ma daa toog ruqam di lijjanti lu muy lijjanti ànd ak ay mbokkam ñoom ñu nekk seen ruq ànd ak seen mbokk ku nekk ku si bëri sa morom dajaloo ñaanante ku ku yàlla def ndam ñoo xam ne def na bu la ko yàlla xañ xam ne xañ na la mais fi ñu ko bëgg a teg léegi du foofu naan ay nañ dajaloo ndax pour intérêt kenn non non. ngeen def ko ci soq. soq bi yëpp am na lu ko njëkkee. soq bi dafay tombe waat rek mu gën a am ampleur mais 100 euh, pour cent moo ko la tey nag ah si laam booy ñaa la nga koy gisee ak ma seen mosoo gis laam am 100 pour cent. loo bëgg non dama lay wax rek comme ñu ngi dox rek quoi xam nga ne dama pour cent ba mu fi am sa ñu naan 100 pour cent xoolal làmb am yi am yëpp ndax dañu si gis 100 pour cent. ama seen soq moo wax bu dugal boobam kenn dugalu ko bu dugal boppam kenn dugalu ko jàmbaar la daa wax moom problème bi soq ma looloo dama faa ko de. gaa fi nekk nii di yoon mu ne man damay bokk. ndax Pikine kenn moomu ko da da da da si bokk dëkk si bokk nag dañ la see war a wax moom bokk mu si bokk nag moo tax ñu ko see wax maaleykum salaam moo tax bokk boobu mu si bokk nag moo tax mu jaayante ko ba bokk si quatrième position yi am ay yeneen xale yu fi nekk yoo xam ni comme ay Pokola Jacob ay ay njaga nu de caatu bason ñu ko ñaanal ndam élément la gars yi nga war a jàppale boobu mais gars yi nga koy seeraan waaw tam na yenn bis yoo xam ne bu ko Pikine amee Pikine gépp a war a jóg xam ne kii élément bi ñu am nii njaga moo war leen bëri na mbër yi nekk si kaw takk seen ngeen du bëri ñu ay ay fu ñu toll si lamb comme si teewoon làmb wax leneen. billaahi am na bëri fii laa la fii laa ko waxee nag ñu bari ñu bëri moo mën ñu bëri laa la Pikine fii Pikine mbëri ko fi mën jël koom. ak ak leer na. ma xam nga Mamadou Ndiaye eh, kenn daa koo bëri séeréer si xam nga loolu. man de moom laa eh, non séeréer yi. man nag nangul naa ko moom man moom problème fekkee dëgg na yàlla xeetu bëree mu ma gisaa man man léegi sax ma déggee ñaar ordinateur la dàq bëree yooyu ay ay ree ay ree la may def <laughs> moo dàq bëree si mbëru séeréer yi ma jot a gis yëpp laa ba si Yékini laa ba ñu wàcc Mamadou des dàq bëree waaw mais mu ngi bëri xale boo xam ne balaa ñu koo xam rek balaa ñu koo xam dëgg dëgg dëgg dëgg laamu ah, dem ba kanam ah, ah, problème bi dañ koy teggi teggal jo jo joxoogu joxooguñ chance bi de ñoom ñoo ko war a jàppale génne ko. waaw nit nit tardement mooy mooy mooy mooy. am ay waajur. làmb ñu soqu làmb dundul làmb waaw loolu doy na doy na doy na doy na sëñ Bamba Mbacke moo tax dañ ko war a jàppale génne ko ku def onze combat benn défaite. daan ay boo yoo xam ne boo yu gën a danger ay jaw din ay ay ay ay ay ay ay numétaires yi ay ay kii waaye doomu aali bi. Ah, ko kenn mënu ko. doomu Mohamed Aliou Ndiol mi. melax xanaa moo coow dafa amul jàpp rek moom it. waaw mais Ndiol moo xam da ngay xeex da ngay bëre. kooku bu ñu ko encouragé woon encouragé bu baax. ah moom nekk si ginnaawam. bi laa dina naqaree daan. Pikine espoir i nga xool booy yi nga xam ne ñu ngi génn biir Pikine te ñaar yan booy nga ma ci mën a citeel ne gëm na ñii mën nañu bokk ci ñiy xëccoo roi des arènes Pikine. bëri na si dafa jaxasoo seen biir ndax euh, boo nee Ndiaga na Pokola na Sokob na Malo Seras numéro 2 Babacar ne Ambu booy Ambu Ras Ndiago ah mu Prince boo nee Prince booy Ndiago booy bi nekk fële ginnaaw raay ah, kon xam ne affaire boobu bébé ëmma booy zoro rak zoro bi bëri bërki démb daan jëli wu bi naan la de daam naa ni na problème bi Pikine Pikine Pikine Pikine daam ñu génn daam daam booy yu loqeeku ñu naan ñi fekk am nekk suuf laa ilaaha illaa bul laal dul laal nag coow lee bëriwul rek xam na coow leelee da nga gis ki bëri coow sax fekkee gen ko nekk ne ndaanaan waaw moo tax gis nga comme ça ko combat bi mu jëm Alboury tax da jël ñëpp ne la waru koo jël Alboury dafa di moom ku ko ci dugal nangam nangam ba loolu nag mooy combat xam nga combat Pokola lii sax du ko. ñaala. ah. lii loolu. lamb ne risque pas ne gañ pas. laa ilaaha da nga koy fi nga koy xaroo. sa mbër fi la ñu koy fi nga ñuy gëmeen yow champion dëgg nga xam nga gars yi dañ naan mënoo ko mën nga ko. Mm-hmm. nga ñëw wan leen ni man waaw mais ku war a bëri ju droit de gérer wala nga war a bëri yeneen. histoire la am loolu ragal Alboury booy xam nañ ko bëri naa ak ay Pokola ak yëpp booy daan nañ ko mbapat. moo lu loolu. <laughs> combat bi ñëpp du combat ci dayoo ba ci taxawaay ba yow nga ne ma Ama Baldé Malick Niang la. moom la laa la wax nii dinañ gis xeex bu ñu mës a gis boobu ragalu xeex xam la moo tax Alboury Alboury moo ngi am soxla. Alboury gis ngeen ni mu léegi nag xam la mooy problème bi boobu ñeme xeex lay bëreel. booboo xam du ko ragal dara. boobu ñeme entraînement. boobu fonk boppam si entraînement. laay walla walaay booy mbëri pikin yi nii nekk fii coow lee nekk nii rek mais ku ko si gën a fonk si entraînement wala gën ko koo ñeme gisuguma ko gisuguma ko bu fekkee dëgg na yàlla digg géew laa la moo tax muy yéex nga foog. yàlla. Euh, Jacob problème fu muy nat si boppam du bëgg a def bu toogee day toog di entraîné di entraîné di ba tollu fenn fii léegi am na entraînement yoo xam boo koy daj si yaram doo ñëw di jaay sa combat. moo tax làmbam chaque jour day métti day saf saap mais moog Alboury bi billaahi wallaahi boo xamee jël bu gaaw la koy daan. Jacob fii la fii lañ ko Sénégal di xamee de. Ah. ndax Alboury <laughs> comprendre sax maa ngi dégg ñu yoon xam naa ni ah. mënu ko doole ñaari yoon. doole ji kay lañuy non doole ngay wax Jacob gis nga ko. xam nga atlet Jacob atlet la. daa atlet dafa yor ragal. xam athlète du faale kenn athlète athlète boo ko doonee fa faale woo cent vingt cinq kilos cent faale woo cent trente kilos bu fekkee athlète nga yow boo amee cent cinq kilos yu normal rek de cent Jacob am na cent kilos wala cent cinq kilos yu normal yoo xam si entraînement la si athlète kon kooku faale wul deux cent kilos Jacob xeex bi euh, Alboury du ko si ëpp avantage bëri Alboury du ko si ëpp avantage da balaa ñu koo xam ñu takkaloo buñ takkaloo la ñuy xam Jacob booy mënuñu ko de xëy na daa am xam nga léeg ñàkk bayre beeg coow yi day xaw a des xam nga coow rek moo xam nga. mais yàlla la loolu yàlla la ku si nekk loolu yàlla dénk. xëy na Pokola xëy na moom day dugg ci biir nit ñi yor benn rythme di ànd ak booy Baye Fall nekk ci kii mais Jacob xëy na moom dafa réservé wu si boppam. mbër mu mag la voilà loolu looy problème bi ku si nekk rek xam nga xale yi moom lu leen waay war nag loolu la ñuy jël boo ñëwee waa seen boobu doon bàyyi di ànd ak ñoom nekk si kii booy booy bëri ñoom ñëpp ñun boobu ñëw ñoom loolu la ñu gëm mais xëy na tamit euh, yow mi di dund loolu tamit am na benn instant boo leen bëggee topp seen rythme mun na la bañ a waaw boo leen bëggee bi seen rythme waaw mën na la bañ a arrangé waaw mais tamit yow di sàcc sa bopp di kalu boo amee léeg-léeg léeg-léeg ñu séntu la fa demee da ngay dem nga rasuwaat nànk génn demoo léeg-léeg na nga jékki-jékki joox fekk la mais teewul nga respecté sa bopp réservé sa bopp tuuti da si am sens ndax boo réservé sa bopp après dañuy dugal leneen si bokkul te bu ñu dugalee leneen si bokkul xëy na mun na yàq sa carrière ndax boo yi si maa ngi gis ni coow yaa ngi bëri nii de mais nañ tey tuuti de booy fi ñu teg seen tànk ni baaxul de ah luy loolu xanaa moo làmb bëri daan nii rek coow lu bëri nii ma noo ma duñ dem de mais maanaam fi ñu teg seen tànk nii nga gis ñu commencé nga ñu koy doxalee buñ ko bu billaahi wallaahi wallaahi dem fenn il faut nga am loo gëm am loo doxalaat gisal làmb duñ naxee làmb daa am lu mu laaj làmb làmb da ngay respecté sa bopp gëm sa bopp làmb daa laaj entraînement rënku làmb am na yoo xam ne ku la nekk nag si leen benn business di di di di nekk si fuli di def lu la neex di daan di daan ñaan yaa fi nekk ndax waaw da ngay jàpp ne jig na la nag waaw mais ah capaandaw ko waaw ah, si kanam moo am solo carrière daa am solo daam boo yoo xam da ngeen xool xam ñi dañuy sàmm carrière gis nga Jackson da ngay xool mu nekkee booy ba léegi da ngay xam ne booy bi day sàmm carrière Jacob si genre rythme boobu la yor dem naa la si limal ay six booy sept booy yoo xam ne dama ni xool rek arafas noo des na. Diop de si la bokk. Cité bu Ngor si la waaw arafas li muy mbër bi la mbër gi desul de kaamil la. ni muy doxalee. waaw na wàññiwaat waaw fréquentation waaw gis nga ni ku nekk yaay sàmm sa bopp bulul dara bulul mbër sax am na yoo xam waru ko def moom. pour nit ak nit kese quoi man dafa laa koy conseillé sama rakk ak euh, euh, rakk ak mag lu budul dara sax xam ne moom budul mbër budul dara am na yoo xam ne nit war a koo doxee nit am na loo xam ne yaay sàmm sa bopp kenn du la ko sàmmal la face yow xam nga bu dee mbër mooy moom man na mun na bëre ñeme na mun na xeex kon moo des fonk boppam ah. ku lay wax gaa yi gaa yi di leen dopp sa ginnaaw naan naan la yaa mën gaa yi ak yooyu waxuñu la dëgg de de moo fii laa la ko waxee mu ngi bëre làmb yoo xam ne pour mu daan waa yooyu du ay wax kese moytul guy bu nëbatu man guy bu nëbatoo dama ko ragal bu në bu nëbatoo bu ñëwee rek def dara fi laa la ko waxee nag bis bu nëbatoo bu ñëwee def dara wallaahi de bu ñëwee doole lay indi du ko ñàkk fayda borom jom la daa am ñoo xam ne aayuñu si làmb mais daa am lu ñuy indi si làmb yow guy gi si la bokk. <laughs> jom ak fulla ak entraînement moo ko àggale si laam mais du bëri bu njalax wala bëri bu euh, bu waaneeg yooyu ñëpp xam nañ ko si moom mais xam nañ ne jom ak fullaam ak ak fonk lamb moo ko àggale fii mu lekk gars yi millions yi lekk gars yi ko dàq bëri ñoo fi nekk xëy na fonk ñu woon sax lamb ñu ko war a fonkee moo tax mu demee noonu mais après yow mi si jaar nag ba am yi am yu la si dal boo gisee sa rakk di si ñëw nii am yoo xam mun nga leen si conseil mun nga leen ko gën a teg Pokola lim nga nag Pokola Pokola waaw Pokola mais ba léegi des na waaw day day teggi tànk bi rek bu tegee tànk bi si yi muy dox dox teg ko si yoon bi mbër kaamil la moo ko Ada Fass am waaw Bébé Diène tamit noonu waaw mais déggalum naa ne am na yoo xam ne jarul nëbbu ñu ñu waxoon dëgg rek ñoom ñoo samay rakk lañu waaw loolu ñoom bu dul dara sax ñoom laa gën a kii waaw. jaay ne dafa war a jël ci booy saf yi ne ci yoon bi mais lan sa problème. yaa ngi may indi waa sax man fàtte woon naa sax làmb nii bari sëñ ma maa découragé wu. lan ngay découragé mujj nga mujj daal. waaw mais gars yi xam ñu bëgg ah kii daanu mag muy daanu. dañ maa jox Siteu Siteu daan ma ñu jox ma jéen jéen daan ma ñu na xam naa ne maalaw mi jaarukaay la te xamuñu maalo làmb ju mu am yàlla rek mooy def mais day def coono day def lépp mais xanaa yàlla moo bëggul bu bëggul da doo ko coog moom. ma daan moo ja sax ma moo ja su ma daan bëriwaat naa ñaari yoon la yoon. loolu doo gisati ku bëree yow. man looloo ma jaaxal. mais ay boy yu yoo xam te ay boy espoir la ñu ngi ñëw. waaye mais dégg nga lamb la woon ne man maag Ada Fass bu yàgg dem ba signature des mu yàqu maag Tidiane Faye taxaw na fi ba signature mu yàqu. Ndandi Fall Ndandi Fall jeex na moom Ndandi Fall laa moom moog Tidiane bi bëre ñoom ñaar ñoom ñëpp ku si nekk sama wax nga daw dem bëre ji ñoom ñaar ñëpp. jot nga <laughs> mais gars yi bëgguñu ma bëree dañ la bëgg a bàyyi loo xam bu ñu la bëgg a bàyyi rek. waaw luy loolu man dégg nga ne man làmb moom. waaw làmb la nañ tey de. jotoon nga ko maanaam. ah loolu jotoon ma ko Siteu di mbër Siteu dabam lu baax rek am na yoo xam ne yàlla boo koy boo koy def yàlla mën na la suturaal nañ tey si moom de. daa am nu muy doxee de daa am nu muy de. moo leen daa am nu muy <laughs> xëy nag gaa yaakaar nañu gën a yomb moo tax ñu jël ko mais nañ tey de barke Seexul Xadim maa leen koy wax yàlla mun na ko jox lu ne boo calculé nu mujjee bu rek la de guerre gaa yi foogoo wuñ ko woon de da chaque jour nag moo ñu progressé gaa yi xamuñu loolu. dañ doon wax ragal la ñeewul xeex bi mu ñëw léegi di dëggal boobam si xeex bi ba pare di taxaw di jéngu la de guerre ko lu yàgg mu mun a foofu xam nga doole mag màgg nañ tey rek te lawul bëre de. mais bi ngay bëre moom non non ba bëre moom xalaatuma sax mu daan ma man boobu ku ma waxoon dix combats sax dama naan booy mun maa yëngal mais lamb moom da ngay gën a yeewu rek loo si dem xëy na tey Siteu bi moo bëre moom ba pare après lu jógewaat si man ma xam ne lamb daal garaawul lamb li des a ak Ndandi Falloum la bu neex la. waay promoteur yi mais promoteur promoteur bi barke Seexul Xarim promoteur bu ko bëggoon léegi man xam nga mooy problème man daa ma bëgg a sax ci lamb. waaw na moo déggoo ma déggoo ma man déggoo ma. bu ngor rek lamb dàq mais xam nga rek sama rakk yi yàlla na ko yàlla defal ndam. Diop de na mais mais ma na dugg na si dugg na si pax mi. génnagul si pax bi de ah. <laughs> booy bi mu am nii. fi ah. laa la ko waxee lamb ko dégg de. Ah. Siteu njool la. fi laa la ko waxee. da njool njool pour nga ko doole yombul. xam naa ko booy moo ngi def exploit yi garaaw fan yi gis naa ko mu dóor booy mu daanu est-ce que amul ay 4 cas xanaa sax non na góorgóorlu bu baax ndax papaam champion la. Euh, ay euh, nijaayam la wala euh, Serigne Ndiaye dee bu njëkk bi. waaw Serigne Ndiaye. maam Ngor. Ah? sa papa la Cheikh Junior. sa waaw mbokk Cheikh Junior ah bu nekkoon si booy ñaa góorgóorlu bu góorgóorlu day am dara ñooñu am lu ñu président maam góor boobu kenn dàqoon bëre si xam nga bu nekkoon Pikine laa ñoom ceg ñoom malal booy sëy booloo mu sax fekk Pikine mbooloo nga ne koo kenn mënu ko moo ay lamb léeg-léeg da ngay gis ba si yàgg sax lañ koy doxal booy bi ah baax na ñoom ñaar lamb la mais booy bu ñu bëriwul seen biir kan la ñuy bëree ñoom xam nga la mooy problème dañoo nekk loo boo xam ne waru ñoo tegante dañoo bëri seen biir mais moom moom bu doon moom sax nii nii ni nii ni fait mun naa bañ jël prince nii mun naa xool ci yoon ndax comme def nga benn benn rythme bi si si si combat yi am na yenn mbër yoo xam ne du da ngay xool sa carrière. moom instant am na leneen loo xam bu mun na ko xool ah, prince am na beneen leneen loo xam mun na ko xool ñoom bu ñu bëri ji ay millions yu bëri la ñu war a bëree mënuñoo bëri si doomu ndaw yi kii kii kii di kale kenn kenn ki di dem ah, non ñoom ñaar comme ñu ngi si rythme bu baax ah, na kee jël ne kee jël ne moo la moo la ma koy may dem dama koy may rek xam naa ni moom dina gëjee <laughs> waaw mais sama rakk laa la wax rek waaw noonu la demee bilaay walaay buñu seetloo ñoom ñaar ñëpp dañuy teg beneen yoon waaw Euh, ku nekk xool si yoon ba xam ne bu ñu bëre ji mu nekk benn trente millions wala quarante millions ñoom ñaar ñëpp yelloon nañ ko di leen ko ñaanal yàlla na ko yàlla def waaw mais ku si nekk war na mën a xool sa beneen yoon ba si kanam surtout moom sax war na mën a xool beneen yoonam ba si kanam bañ a jël presse heure bii bu fekkee dëgg neex yàlla presse moom boo bëggee dégg-dégg nii rythme mu yor nii gars yi dañ ko jox si waaw dañ ko jox si benn rythme yi yoo xam ni moom euh, baytin dëgg naa ñu koy dox combat la jaadu na jaadu na kii gis naa benn combat kii Coly Faye 2 amul combat moog booy bi war nañ ko mën a may. si fay vite. waaw. ah mais sax xam amul 5 combats wala 6. 6 combats waaw 7 combats war na ko mën a may chance amagul defet ah mais na ko may lamb amatul loolu waaye luy loolu na ko may chance am na yoo xam ne tey ñu bëre comme yow Petit Lo moom mu ngi dem di bëre bo lu mu def si lamb Petit Lo def ko mais ñoo xam ne dëgg lamb amatul loolu la jaxasoo ba Modou Lo bëre Siteu amatul yooyu yàquwul sax de loolu am moomatul loolu ndax Siteu ak Modou Lo ku ko tëgg da ngay fayeeku ku ko tëgg doo perte de promoteur yi la ñuy wër de ku si nekk mën nga daan sa morom ku foog ni Modou Lo mën da ngay nax sa bopp waaw loolu demee waaw waaw gis guy aada waaw mooy loolu yàlla yàlla wa jàmm